interne, c'est-à-dire dans le cadre des réunions internes du parti, pour l'amener, pour lui tirer le verre dans le nez. Mais il n'a jamais cédé à la tentation. C'est quelqu'un euh, qui n'a jamais été un homme de détail, mais un véritable homme d'État. Un véritable homme d'État. Et pour euh, ceux qui le connaissent, savent que le parti aussi, le Parti socialiste lui doit énormément. Parce que nous avons eu la chance de l'accompagner avant 2000 après 2000 également à maintenant, nous avons été à ses côtés. Sans Bouger, on a, on a été avec lui dans sur tous les théâtres d'opération. Mais euh, le parti lui doit énormément. Si on continue de parler du Parti Socialiste 19 ans après la perte du pouvoir, c'est parce que Ousmane Tanodien a été là. Il n'a jamais fléchi, malgré les soubresauts de la vie politique. Un homme multidimensionnel, un homme euh, qui connaissait beaucoup de choses, qui parlait peu. On n'a jamais pris euh, euh, personne ne peut aujourd'hui dire, malgré sa longévité sur l'espace politique, qu'il a eu, quel que soit le contexte et les circonstances, à émettre un mot de trop ou un acte de trop. Voilà l'homme Ousmane Tanolien. Un homme, dans le contexte également où nous sommes, de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai une pensée pour lui, parce que c'est quelqu'un qui aimait énormément le sport. Et on a vu le contexte à la veille de la qualification du Sénégal pour, une finale historique. Il s'en est allé. Un homme pire, plein de bonté, de sagesse, euh, qui a fait énormément de bien. Et euh, l'opinion pour la majorité, euh, beaucoup se permettaient de juger l'homme sans jamais l'approcher ni le connaître. Mais juste une anecdote. Je connaissais un de ses terribles adversaires qui n'a jamais qui, était adversaire farouche de lui et qui n'a jamais eu la chance de l'approcher. après en avoir eu l'occasion, il m'a dit sale », je lui ai dit oui, il m'a dit euh, j'ai pris le bon Dieu de me pardonner. Parce que j'ai rencontré aujourd'hui un homme, un monsieur. On peut avoir euh, des préjugés, on ne peut qu'avoir des préjugés sur lui, mais on ne peut pas le détester sans quand on s'approche aussi près de ce que j'ai fait aujourd'hui avec lui. Donc voilà l'homme C'est un séisme. C'est un séisme, c'est le Sénégal qui a perdu, c'est le président Macky Sall qui a perdu, c'est l'ensemble des Sénégalais qui ont perdu. tey nag nouvelle bi moom wax dëgg yàlla ak yonent ba metti na lool metti na ci ñëpp macha allah tubaar fakal la man nag sama fii moom sama taxawaay maa ngi taxawee ci taxawaayu Doudou Issa Niass maire de la commune de Biscuiterie àndoon ak Ousmane Tanor Dieng ànd bu rafet Ousmane Tanor tegoon ko place am joxoon ko wàccuwaayam ñun nit mu jox ñu sunu palaas jox ñu sunu wàccuwaay nekkoon nit ku baax nekkoon taalibe nekkoon ku bari woon yërmande kaaram yàlla na ko yàlla yéege ca maqaama ya gën a ko macha allah tubaar fakalla yàlla bu mu réccu dara la mu defoon ci àddina macha allah tubaar fakalla ñépp a ko gërëm Doudou Issa Niass am na lu ko metti lool tey jii ca fee mu tëdd tey jii yaramam man mii sama yaram sawarul bu yàgg ba léegi maa de tey moom dama jóg ndax Ousmane Tanor Dieng moom wax dëgg fa yàlla ak anta ba duñ def lu dul di ko ñaanal yàlla nit ku baax la woon ku nekkoon ku nga xamante ne ni exemplaire ku doxoon ndànk wax ndànk jëf ndànk ku xool ci moom bu dul politik sax looy def lu nekk rek da nga koy def ak tey ak dal ndax àddina loolu mooy li nga xam ne moo ciy dox tey ji daal waa parti socialiste ñàkk nañu ku mag macha allah tubaar fakàlla Sénégal ñàkk ku mag ñun de plus particulièrement commune de Biscuiterie ñun ñàkk nañu ku mag a mag a mag a macha allah tubaar fakàlla ñu koy jaale waa àddina yëpp nag di ko jaale Doudou Issa Niass maire de la commune de Biscuiterie di ko jaal suñu bopp di ko jaal waa àddina yëpp metti na torop macha allah waane nag yàlla kenn du ko coob moom ndax ku dul may sa bopp lu la yàlla may nga jël macha allah tubaar fakàlla moom daal du nu def lu dul ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla atte ci man dem jéggal ko ay bàkkaaram yal na dëkk ak Cheikhuna Ahmada Tijani Chérif yal na dëkk ak Seydina Muhammad alayhi salaam lii daal lañu ñu amoon lu ci wax. Ousmane dafa nekkoon nit koo xam ne kii dafa maandu jàng comme ay moromam am ay responsabilité réew mi depuis Senghor. ba léegi xam lu bare nag ci Sénégal ak fépp kenn mësu ko dégg ci gémmiñam mu génnee loo xam ne du naka sa noonu kenn mësu ko dégg te kat xam na loo xam ne bu ko waxoon xëy na àdduna tas ma réew mi waaye àdduna sax day tas wante euh, dafa nekkoon nit ko xam c'était un vrai homme c'était un vrai patriote parce que nag soo gisee ni mu demee sax nga xam ne c'est un patriote assonage élection yi liggéey na ci lu bare ñu teg seen bët toogul bu ko neexoon toog mais toogul dafa liggéey parce que xam na li réewam lay liggéeyal Ousmane dafa nekk mës sa nekk au service de son pays parti bi nag ñàkk nañu ñàkk nañu nit koo xam ne kii ah ba ñëpp demee moo fi desoon Abdou fa mu demee ñu daanu 2000 moo fi toogoon toog di muñ di muñ ak ñi mu fi ak ñun ñii nga xam ne gor ñi nga xam ne ñoo ko seqoon ñu mu toog di muñ di muñ di muñ di muñ ba yàlla indi nguur ñu Macky Sall ñu def benn bokk yaakaar ci la amee au conseil bi te au conseil bi mu koy am sax xaw na yàgg tuuti waaye kenn mësu ko dégg mësul xëccoo lenn mësul xëccoo dara torop torop torop torop torop waaye nag yàlla mooy décider mooy jël man mii sax bu neexoon yàlla du ma yeggal li may wax kon nañ ko teg foofu rek xam ne yàlla moo ko indi woon ci àdduna mu Ousmane def na mission mission jeex na Ousmane dem na dem na nu mu war a demee demin bu rafet macha allah demin bu rafet a rafet a rafet a zéro mu fi bàyyi itam du bidd sax ndax dañuy fexe ba li nga xam ne bàyyi na ko fi ñu jéem koo saxal jéem koo suuxat jéem koo toppatoo bu soobee yàlla ak yonent ba nag ndax parti bi parti bu rëy waaw ah, te it ah, am na ñu nekkoon a autour de wi a ah, doon liggéey ak moom yal nañ yàlla lafal cat may nu kàttan ak wér ba nga xam ne lii moom commencé na ko yegg si fii ñu mën koy yeggal ci ci alhamdulilah.